defal euh, li nga xamante ni moo di arrangement bi euh, liggéey ko liggéey bu set boo xamante ni morceau bi tey mën nañ wax ni euh, morceau bu rëy la boo xamante ni buy tàkk te dul bu dul fay ilaa yoomi diini ndaxte la boo xamante bi réconforté les Sénégalais mais aussi mën nañ wax ni morceau bi abi boppam la ko mais aussi dafa mel ni Sénégalais bu ne boppam moo ko moomal a war a jàpp. <laughs> voilà très mhm. bon xam nga jàppal mu dëgër bi muy bi mooy bi ma doogee jógee Amérique moom c'était pas évident mooy yi ñu doon waxtaanee léegi rek. Mhm. mooy que ni am na nu mu doon demee noo xamante ni budul budul sa background boobu may wax a chaque fois rek. rek lambay ñaaw rek lambay ñaaw. <laughs> background boobu mooy moo moo tax man ma dee jàpp rek teewoo bàyyi te damay jàpp ba. ilaa yomi dina wallaay ah. wallaay. <laughs> donc l'histoire de Diapa c'est Abibatou Ndour euh, vraiment mooy mooy sa vécu. wallaay li nga li nga jot dund. loo xamante ni jaar jaar la. wallaay wallaay mu neex ak mu naqadi. wallaay moom la ñuy wax ne que bu ndox mi tuuroo. Mhm. dañ naan bu ndox ah Macky dañ naan bu ndox tuuroo damal an mbaq rek a des déedéet. ndeysaan da ngay dem waat an mbaq wóorul. Mhm. da ngay dem nga duggaat ca ca ca teen ba nga nga dem rootiwaat. mais tey bu ciy retenir lan nga ciy retenir lu la gën a neex loo xam ne ki na la. man nag euh, xam nga si daat tu sais problème. Hmm. man am so easy. man sama problème xam nga lan la. Hmm. man lu neex rek laa xam ak lu nooy. lu neex rek. lu may wut ci leneen. yàlla indi fi glace indi fi safara lu may doyee aliment man. xaw ma ko lay doon ju glace laay jëy yëy ko béyee. ba glacé. ba cim <laughs> jël mbaaj mu riis dugg ci biir. déedéet talu may lenn lu tàng mënuma ko attanuma ko. dama tuuti xam nga ni ma ni ma ndawee nii. lu hmm. tàng daa xaj ci man. kon mën neen wax ni ami euh, abi amul dara loo xamante ni que naqare na ko mu marqué ko. déedéet xam nga lan moo tax dara naqarewu ma. Hmm. ba ma yàlla sàkkee. Hmm. boole ma ci diine Seyduna Muhammad alay salaatu wa salaam. amul lu ko gën a rëy xeetam. nga bokk ci amul lu ko gën a rëy. ñu ne deeta waay yàlla may la ñaari way yoo xam ne duñu raser les murs ci réew mi ñu bokk sosoo fi màggee fi yaroo fi nga sant yàlla ma di jigéen yàlla ma sant yàlla yàlla def ci man njaboot ba ma waree sëy ma sëy yàlla may ma njaboot ma sant yàlla li gën a rëy ca kama la njëkk tuddal muy sang bu tedd bi Seyduna Muhammad alayhi salaatu wa ma ne copp ba ca moom. <laughs> ziyaare ko waa Sidaat man lu ma namati maa ko tey lu ma namati. Hmm. kon maa ko tey namu ma lenn. man hmm. ba ma amee sang ba rek ca ne nii glace doo mu lay lekk lekkuma na namoo dara. namuma dara man ay milkshake ak yooyu laa bëgg bu ma kenn indil ataaya wala tee. ay papa Ndiaye daal namoo. non non namuma namuma namuma namuma Sidi Diop man. namoo ma namu nam naa sidaat kay. <laughs> biir ci biir loolu. Euh, euh, wax nga ci biir wax ji. Ah. Euh, ba dugal si ne sama sama papa ak sama yaay. Mm. ndax c'est très important nu delloo buum ca mboy mboy ga. nabi mm-hmm. lépp ñoom la tey abi tey bu ñuy wax tey sa papa ak sa yaay. Mm-hmm. tey ban yar neen def ci yow boo xamante ni que muy góor gi Iliman Ndour wala soit sunu yaay ajaratu ndey soxna Mbuub tey ñoom ñaar. mën neen wax euh, yar bi ñuy def ci yow tey euh, ban reflet lay def ci yow aussi ak tey naka nga koy dundee ak tey naka la doonee sa arme. xam nga lu ñu def ci man ay xam nga ay war a def ta doo def ay ñemewuma ko loolu lañ def ci man te doomu a doomu nit ku baax kuy dox ku ne il faut ay di nekk ci yow ay loolu de sañu ma koo def ay loolu de sañu ma koo wax mm-hmm. loolu doomu nit ku baax ku ne loolu dafa war a ne ci ñoom ñooñu nga tudd mag ñu baax ñooñu nday soxna mbuub ajaratu nday soxna mbuub ah ak alaaji Eliman Ndour mi ñu Youssou Ndour tuddee immeuble bii uh-huh. ah ah sidaat su doon yàlla dafa may delloowaat sax su ma nee kan nga bëgg mu jur la dama ko naan dollil Ali Baba Dior ma ca jaayaan ndeysaan ah ah buubu dembaane ak daaro dembaane mm. ñooñu kenn du ñoom lépp ñoom la lépp ci ñoom la commencé te lépp ci ñoom lay dellu ndaxte dañu naan euh, ku fi ku fi sa ndey liggéey waxtu wu neex ngay dox benn xaj du la bëw moom la aj euh, euh, alin Mbaye Nder wax yaay ju matee yaay bëccëg lay dox waaye yaay ju matul yaay guddi lay dox xaj di ko mbaw dañoo sant yàlla ñun sunu yaay ñun ñooy xaritam ñun mooy mooy sunu xarit mm-hmm. ñun ñëpp nag macha allah tubaar fakal la ñu ngi may dégg ak ay rakkam yi nekk fii ñëpp ak may déglu. Hmm. famille bi ñëpp ak may déglu. Sidaat man dama sant yàlla. barke yaa rasulullahi alayhi salaatu wa dama sant yàlla. man taaliba bàyyi laay ak Seydi bii dama sant yàlla. man sama sang baa ngi fi yoof tëdd man damaa sant yàlla Sidaat man dama sant yàlla sunu borom dese lu ñu dara yàlla dese lu ñu dara ndax boo nekkee nit ku ñuy tudd ci lu positif rek da nga koy sante sunu borom. Hmm. loolu sant yàlla la kenn du Elimane duur kenn du ndey soxna mbubb wallahi azim dama sant yàlla man dama sant yàlla si daal boo leen di tiitaroo di leen sagoo maanaam tey mën leen wax ni mérite la mën leen di tiitaroo di leen sagoo ndax mën leen wax ni ci yar gi la ak li la def tey nga doon ko lan nga ciy fàttaliku lu la marqué loo xamante ni que ci papa la ou bien ci maman la ñun som papa duñu dóor kon paa bi musu laa dóor. sam day jàkkaarloog yow. xool la paa bi musu la tànn pargaat. <laughs> Ah, ah. gis nga gune gu ñuy dóor. Mhm. bu bu bu bu bu am jeunesse boobu. Mhm. enfance boobu ñu koy dóor. Mhm. boo ko xoolee danga ko xam. non ñun sam papa daf ñuy xool ci bët ba tey bu ñu xoolee ci bët dañuy xam la mu wax ak la mu waxut. sama yaay nag moom sam ñu ko tànnal rek mun ta woon tànn keneen ku dul moom. boobu mati dembaane ak daaro dembaane mënta woon tànn keneen ku ju ajaratu ndey soxna mbubb dégg lii wallahi azim yow yow tey maa yanu rajo bi yow may leen waay dajil buy ma yow yow defal nii yow xaaral nan nan lay des ah sidaat buy ma sant de waaw waaw Eliman Ndoura ñu tànnal yaay ju baax hmm. moo tax ma ne ko ba ma juddoo ba tey yar nga ma aar ma yiir ma wane la ma won nga ma lépp lépp lu ñu xam rek ak lépp lu ñuy doxe wuti ko sàcc ñu ko jéngaane ko ci suñu jur lañ ko jëlee suñuy wayjur jël ko ci seeni wayjur Youssou Ndour macha allah nii rek la mën a mel dafa mën mel neneen moo doxal fooy waay. ñu dox fooy. Ah, eh. xam nga loolu neex na ba nga xamante ni que doom. wax lu rafet lii ci papa. doom rafet na loolu mu wax lii ci yaayam kon fonk ndey ak bàyyi lu am solo la. ci doom ku ko deful tardé. ndax am na ñoo xamante ni fonk wuñu seen i ndey ak seen i baay. du ñu doon dara. tey euh, ban message ngay gën a lancer par rapport ak euh, la jeunesse sénégalise fu nu war a teg parents yi nu leen war a gën a jàppale nu ñu war a gën a taxawee suñu ay kilifa abi tey euh, message boobu ni ngi koy xaar ci yow. Sidaat wax dëgg neex yàlla mën naa sensibiliser mën naa wax lu mu mën ci doon waaye gune gu fonkul ndeyam ak baayam yàlla bu ma dajeek yow duma am lu ma lay wax. ndax xam nga ni ndey du moroom baay du moroom. kon ku amut kilifa yàlla bu ma dajeek yow. fan yi rek ci information yi laa dégg euh, ci xibaar yi. Mhm. ñu ne am na benn xale boo xam ne dafa rendi papaam. allahu akbar si daal bàyyi mu sedd xam nga man wax naa la man bugguma lu metti c'est-à-dire mu nekk ni dangay tax ma ñibbi sama kër di stressé wu xam nga boo gisee que fonk ndeyam ak baayam gis koo xamante ni fonkuwul ndeyam ak baayam di def loo xamante ni dañuy dem ba rajo yi sax di ko di ko xibaar nga xam ne kon pour y' a problème au Sénégal. yàlla na ko yàlla soppi. tey bu nu toogee bay dégg ci ay xibaar ñoo xamante ni fonk wuñu seen yaay. Mhm. wala fonk wuñu seen papa. Mhm. qu'est-ce que ça fait exactement. ah man de wax dëgg neex yàlla xaw ma loolu lu muy def ndax xaw ma ko man daal li ma xam nday soxna mbuub laa am ak Alaaji Eliman Ndour aw ma lu leen ëpp aw ma lu leen gën du ma amit lu leen ëpp du ma am lu leen gën ndax coow li coow li. ci ñooma ndax mënoon nañ ñoo jur xoj ñu ñu dee mbaa ñu toroxal ñu mbaa ñu dugg ci loo xamante ni man Medina gii ma juddoo màggee fi yaroo fi yàgg naa dem marché ti leen bi mbaa marché gël tàppe di nduggi su ma neexee léegi nii ma génn dem te kenn du ma dab ndax xam naa fi fi laa juddoo fi laa màggee fi laa yaroo vélo laa doon yor di dem fépp kon loolu lu ko waral sant yàlla xam nga ñun fi ñu dëkk fii corniche la ñun booy seet dëkk ñu sax biir Medina corniche lañ dëkk te duñ génn sunu buntu kër te ba léegi looloo am boo ñëwee sama kër 21 heures ma tëdd nelaw loolu loolu yar la dañ koy sante yàlla sunu borom man daal si daal wax ma yu nooy waay. ma wax la lu nooy. waaw. way nga paa bi way bi ne